asalaamaaleykum ni leen ko waxee woon euh, sànq ci euh, jotaay bi nga xam ne amaloon nañ ko ak euh, ki nga xam ne mooy far ba Senghor ak Adama Fall dal nañu dalal koo xam ne dafa bokk ci parti PASTEF particulièrement bokk ci Yewwi Askan Wi nekk en souteneur de du leader de PASTEF Ousmane Sonko ngir principe yi nga xam ne moom la moom la wone dañu am mbégte rapidement dalal ko Euh, muy euh, Nit Dof Nit Dof ñu ngi lay dalal Mortalla Gueye di artiste rappeur ñu ngi lay dalal ci Sénégal set maa ngi lay nuyu bu baax Abdou Khadre di la remercier di nuyu waa Sénégal set mm-hmm. et di nuyu ñuy seetaan yëpp di def benn correction bu ndaw si euh, parti Pastef aw ma carte membre bokk ma si bokkuma Yewwi Askan bi. ci mm-hmm. li ma d'accord yow mooy je suis un souteneur. du président Ousmane Sonko. et je suis un artiste engagé activiste comme comme on le dit. Mm -hmm. donc voilà. lu waral soutien bi justement. ba soutien bi je pense que euh, expliqué naa ko ba Sénégal yëpp comprendre ko parce que ci sama suite logique laa nekk. depuis 2007 au-devant de la scène j'ai défendu toujours les mêmes causes les mêmes valeurs ci life lu gën étudiants yi ma doon suivre bi may laaj kañ la ñuy am benn président bu gëm réewam yamale chance ak droit yi ci bopp payam mhm. je pense que boobu Ousmane président Ousmane Sonko mi ngi nekk impôt de liggéey duggagu woon ci politique mu te man maa ngi ci même lancé boobu noonu après ci ñi doon xeex 2011 2012 ci la bokk ñi bëggoon changement parce que jàpp nañ que ni euh, ñu ngi doon basculer dans la dictature ñu ngi doon basculer ci leneen ak leneen ñi bëggoon changement boobu noonu. man ci la bokk. juste après ñu ko continuer aussi ci la bokk ba bi Ousmane président Ousmane Sonko di bokk ci euh, créé parti moom en 2014 bay ñëw wane lu taxoon man ma doon xeex. li ma doon ñaan kañ la am xeetu politiciens yu mel nii kañ la am nit yoo xamante si nii nii lañuy ñuy euh, yare ndaw ñi maanaam ci ay valeur nekkul ne yow laa faral kaay jox ma xaalis nekkul yow laay votel kaay jox ma xaalis mais ci ay idée lay doon. Mhm. tenir un discours qui rend à la jeunesse sénégalaise africaine sa dignité et bi mu faloo maire on voit que les actes sont sont sont posés et euh, rendre hommage à nos résistants à nos guerriers parce qu'on a une histoire mhm. même si notre histoire a été falsifiée par euh, que l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs à leur sauce ni ñu ko bëggee pour tumuler mhm. pour wan la que ne ñoo la supérieur ils vont laisser leur marque euh, de domination tey jii bu ñu amee des gens ci si ci logique bi ñu annoncé woon ne nii lañ xalaate politique ñu dem bay rebaptiser cette domination di jëlaat suñu ay guerriers avec leur histoire parce que tout le monde va se poser la question pourquoi un tel lañ ko tuddee abri et les enfants vont commencer à comprendre qu'il y a eu de la résistance mm-hmm. donc les euh, les colons veulent nous faire passer pour des gens soumis yu amuloon benn xel yoo xam ne dañoo ñëw def leen li ñu bëgg def ya avait des traites yu doon jaayante seen biir alors que l'histoire ne s'est pas passée comme ça mm-hmm. donc si on a des gens qui veulent qui continuer euh, xeex bi Cheikh Anta Diop commencé woon livre yi Cheikh Anta Diop bind et qui viennent falu commencé wane yoon boobu noonu on s'est dit qu'on ne s'est pas trompé de, de personnes. Et euh, c'est toutes ces choses-là réunies qui, fait, qui font que euh, ñu euh, soutenir président d'autant plus que li nekk en face mooy le système bi ñu doon combattre en 2011 le président Macky Sall dafa ñëw profito de cette révolution il avait annoncé que lu tax mu ñëw lu tax falu il est conscient de ça que on a perdu des vies humaines pour que moom mun a falu on s'est battu on a trop perdu de comme euh, Euh, il euh, trop de dégâts il y a eu beaucoup d'espoir derrière ça et lui il a trahi ça dès que mu toog ci chaise am la euh, le, patrie avant le parti une gouvernance sobre et vertueuse lim ñu digoon euh, justice boo xam ne ak corruption c'est tout ce qu'il applique bi mu toogee et en plus de ça il a utilisé notre police notre gendarmerie il y aura pas de marche je vais emprisonner les les opposants ñun ci dëkk bi lañu dëkk une personne sénégalais comme tous les autres toog ci diggu sénégal yi di doxal dictature am ñun ñu croiser les bras kon lañ doon woote du nekk dëgg si ñun. Mhm. donc ci suite logique boobu la ñu nekk ba bu ñuy def le choix du euh, président Ousmane Sonko c' parce que on sait qu'il y toujours ce système et que ce système là dafa war dafa dégager. Mhm. et la seule personne selon nous qui incarne l'antisystème ki mën a yóbbu en tout cas système bi di toroxal Sénégal yi depuis soixante-dix ans pour nous c'est le président Ousmane Sonko et à soutenir. d'accord malgré que mu ngi ànd ak ñoo xam ne ci système lañu ne lañu bokk. xam nga le président Ousmane Sonko il a été très clair ñi bëgg nëxal xelu nit ñi. ñoo naan Euh, toog na ak diw toog moom il a toujours dit que j'ai pas de problème de personne. Mm-hmm. à moins que nga nekk quelqu'un boo xam ne si ni kenn tu ne peux personne ne peut ne peut te fréquenter. Mm-hmm. am na tooxi doona yooyu def ànd ak yow day xaw a mais des gens du nekkoon liggéey ñi nekkoon ministre ñi nekkoon euh, euh, directeur cabinet mais ces gens là mën nañ dem ba jëmi jamono ñu toog si benn train buy dem daat ne léegi d'accord train bi comme fii la jëm te nii la gisee on se soumet à cette à cette démarche. pour servir suñu réew des gens yu nekkoon ministre en 94 wala en 2001 mais ils peuvent servir ils peuvent servir le Sénégal bu fekkee nangu nañoo tënku ci vision bii nii donc c'est pas une question de personne donc le président n'a pas changé de discours waxul lam mu daganal ko parce que mu ngi fréquenter des gens non non non il est toujours dans sa logique dans le même discours de rupture mais il n'exclut pas des Sénégalais il ne faut jamais exclure des Sénégalais parce que nit mënoon na bokk ci benn système nekk ministre wala mu nekk fa député wala dara système boobu obligé woon ko muy marché comme ni système boobu di doxee. Mm. mais euh, quand la chance bi la adduna bi euh, offrir chance. Mm. pour que nga dem ci benn. Euh, ba nga nekk ci benn mouvance en tout cas mouvance bi nii lay doxee dëggal jubal non à la corruption gëm suñu drapeau yam ci sa salaire nga ni tënku naa ci lii mais tu peux aussi servir le Sénégal. Mhm. d'accord alors dañuy dañuy dañuy ñëw si benn loolu nañ ci ñëwaat ci biir ah. ak mhm. euh, li ngay wax mënuñu exclure des sénégalais. Mhm. mais dans le cadre de la coalition bi de l' intercoalition bi nga xam ne am na. Mhm. bon en tant que souteneur. da ngay am da ngay am benn position d' observateur. bien sûr en quelque sorte. bien sûr euh, nga wax ñu si un peu lan moo ci sa xalaat mais balaa ñuy egg si foofu. Euh, déggoon nañ benn coow boo xam ne amoon na fële à Ziguinchor. foofu nga xam ne le premier magistrat c' est Ousmane Sonko. nga amaloon benn concert foofu. ay fan a ngi nii. ay rumeur mën nañ mën nañ tuddee rumeur c'est l'occasion de de leeral ko mhm. les million jot jox nga ko ci Ousmane mhm. Sonko dans le cadre de l'organisation d'un concert mhm. naka la mbir mi tëddee merci merci de me poser cette question dina ma permettre un peu de manière beaucoup plus officielle si site bii nii ma leeral loolu donte xam naa que ni les Sénégalais se sont fait leur idée parce que qui connaît le président Ousmane Sonko xam ni du doxee noonu le président Ousmane Sonko c'est des idées àndu nawle ànd des valeurs ñii ànd ak moom ñëpp ils n'attendent pas de de lui euh, cent francs ou deux cent francs et lii rek euh, dafay euh, xaw a baax na ci sax le fekk ñu def ko parce que aussi dafay yee Sénégalais yi si à quel point les gens peuvent mentir fan la leen politique jaral lan la leen politique jaral parce que lépp du début à la fin tout est créé tout est faux te man nag aussi yàlla dimbali na ma dama dama xaw a am dignité ak jom man loolu rek laa am ci àdduna aw ma fi lan seen ginnaaw sama ngëm ma famille maanaam su ma tooyee samay nawle lenn kese laa leen mën a jàkkaarloog ñoom ci ay bët du xam-xam que ñi may toogal ñu ma ëpp xam-xam mais dignité jom yooyu nit du ma ëpp ci àdduna ba tax na ànd bu may ànd ak nit àndu principe lay doon àndu idée àndu ngëm-ngëm man duma koy tàllal loxo ñu may joxee xaalis bi may feesal ay ay salle ça fait plus de quatorze ans mm. ñu tuddee ma le roi des stades parce que show of the year tout le monde sait que pour dem seetaan ko je l'ai fait sans sponsor jusqu'à maintenant mu am des partenaires yuy ñëw di ànd ak man di ma di ma jàppale maintenant et que j'ai un promoteur qui est la qui investit lui aussi pour que ñu mën ko def la semaine d'avant je l'ai fait à Louga personne n'a dit qu'on m'a donné vingt millions tey ma ñëw def ko parce que y un un Ousmane Sonko bu ñu war a taqal deram nga gis nit dem toog sos en plus de ça ñu am des morts créés par l'État pour leur négligence hôpital hôpitaux yoo xam ne amul extincteur hôpitaux yoo xam ne amul alarme d'incendie ñu délaissé leen xalif bi di jooy euh, yàlla ma jàll jégal ci waxin bi sa xalifa bi di jàmbat ak di soññ dimbali leen ci ci hôpital bi ñu koy gantu di ko tànkam lu hôpital bu Tivaouane bi ba mm-hmm. mu am dégâts yooyu noonu je pense que bépp Sénégalais bu am dignité li nga waroon mën def mooy ñun suñu état bi moo ñàkk fayda mm-hmm. parce que li ko daloon à Louga y a même pas waroon na ko yee et puis surtout fu ay xale di nekk mën nga sàggane ay mag y' a pas de souci y' même un souci mais je veux dire moins grave nga sàggane ay xale soo demee si réew tubaab yi doon tey ñun du ñoom ci ñoom lay xool comme valeur parce que jàpp naa ne ñoo leen dëpp ay valeur mais lu jëm ci wàllu xale seen bakkan lañ ci teg. ci doomu aadama ci doomu aadama surtout les enfants. fu xale di nekk d' accord def leen corruption fépp pour lu moon see corruption bi am ci yenn secteurs yooyu noonu. Mhm. def leen corruption yëpp mais fu jëm ci wàllu xale yi ngeen wane fa fulla fayda ak vraiment toppatoo mais su ngeen ko sàgganee. bu toox yi doona bu mel noonu am fa mu jur de morts plus de onze bébés d'autant plus que xalis bi rappelé na leen plusieurs fois ngeen yóbbu ko ci beneen niveau hôpital bi mais ku am dignité un peu ak loo politique politique war ngaa rusa jël le malheur de ses de mais nga ni xaaral ñu xool benn nit bu nekk de l'autre côté ñu taxal ko si moom deful hôpitaux yi c'est pas de sa faute on était en période de deuil du jeudi au samedi à minuit. Mm. ñun ñëpp on a respecté man je ne plus de publication j'ai arrêté ma ma comment ça s'appelle euh, ma communication ma les promotions les vidéos des artistes qui doivent venir au concert waroon naa ko publier pour donner plus d'envie mais tout ça je l'ai arrêté j'ai fait un message de soutien et de compassion aux parents des victimes et euh, à la population de, de Tivaouane et du Sénégal et j'ai arrêté toute euh, publication mais pour ànd ak pour ànd ak pour ànd ak sénégalais yi ci douleur boobu noonu Après, il fallait trouver une solution parce qu'on avait déjà parce que c'est pas notre faute tout ça ñun ñëpp xam nañ que dañ koy naqarlu mm. tout ce qui s'est passé am na yeneen événement yoo xamante si nii bàyyi nañ mu déroulé wu ci biir deuil mm-hmm. mais c'est un peu tabou nañ dem songu ñoom président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko il a pas organisé de concert il a pas donné d'autorisation ñun ñoo bëgg solution ñu dem seeti le moom ñu ne ko ñun on a vraiment arrêté la caravane on a arrêté nos, benn solution de def suñu concert tout en étant euh, en, en mm-hmm. mais le préfet nous bi mu ngi jeex le 28 à minuit mm -hmm. donc retardez votre votre programme jusqu'au 29 e vous faites vos, vos, vos, votre concert le 29. Moi, je suis monté euh, sur scène le 29 à 4 heures du matin. Quand je à 4 heures du matin sur scène, c'est parce que ci ci 3 jours de deuil bi Mais le préfet a donné une autorisation. Nous avons minuit. Premier groupe pour, pour faire euh, cette euh, prestation. Ils, ils sont montés parce que même montage ou sonorisation, ko ont ba guddi gi premier jour équipe yi yëg ñu ngi yëg plus de à deux du matin mooy la euh, la première partie le vingt neuf à deux du matin man ma ñëw yéeg plus de quatre heures du matin ma ñëw yéeg ko pour nag nekk su le vingt neuf pour respecter les trois jours de deuil mais lu si yoonu président Ousmane Sonko dans tout ça gisuma ko avant seetiwuma ko avant def nañ suñu concert concert bi jeex na la dimanche nag tout le monde sait la xam nga ni la relation bu mu am ak moom le dimanche mën naa dem seeti ko j'ai fait le tour du du Burok seeti les jeunes yi seetal dëkk bi ma pare fa si ngoon gi ma dem seeti ko waxtaan ak moom ñu saafonte ma juge fa ne ko bëgg naa jaar ci kër gi ziar maire bi ñu jaar fa seeti maire bi ba ñaan war a jot ma dem sukk na ko yaay booy ñaanal ñu. ñu pare jël suñu jël suñu affaire ñibbi si Sénégal. Mm-hmm. ñibbi si euh, à Dakar. Mm-hmm. mais juste pour te diir que ni temps bu mu fi def yëpp présentement Sonko genre jiiñ yi genre takkal yi genre fen yi. la ñii di def te ñii ça veut dire que lii la leen politique jaral parce que démb gis ngeen ci manifestation bi ñu ne ñoom ñu ne dafa ab car bu daanu y a onze morts ce sont ces mêmes gens qui vont venir faire semblant de pleurer benn deuil national 2021. mais y a waaw juste pour te dire que ni même nos morts ne les touchent pas même quand il y a eu des bébés qui sont morts calcinés ils essayent d'utiliser la situation pour dem salir benn président Ousmane Sonko foofu la leen politique toll kon xam nga ni ñii jooy bi ni jooy bébé yi du dëgg si ñoom parce que bu fekkoon dëgg la si yow t'auras pas le temps de jël souffrance nit yooyu pour dem salir si une personne boo xam ne fu mu toog il a le cœur qui ndax xale yi dee yoonum nekkul ci ci ci ci ci un concert ni un vingt millions nga toog yëpp def ko c'est juste pour que nit ñi yeewu ci xeetu nit bi ñu amal affaire nguur jaral na leen du ne euh, euh, faggaagal wala wàññi aliru président Ousmane Sonko jaral na leen fen ba fen ci ay décès wu onze bébés yoo xamante si ni ils sont morts calcinés donc que les Sénégalais prennent conscience que y a des yoo xamante si nii gàkkal jaru nit sos fen amuñu ci benn euh, état d'âme amuñu ci benn benn xalaat bu ñu ciy xalaat que na ko Sénégalais yi xamee noonu tout a été créé du début à la fin ce sont des mensonges et def naa que ni balaa euh, jant bi di so yàlla wan na bopp Sénégal yi yëpp que ces gens là ce sont ni plus ni moins que des menteurs. d'accord alors campagne de bi ngay wax. dont il fait l'objet souvent mm-hmm. euh, yéen du du yàq dara wala mu am dara lu mu bouger ci seen seen gëm-gëm ci moom su soutien bi ngeen di am ci moom des fois du leen arrivé ngeen am un peu de doute par rapport à lui bu doon début bi la mën na nekk mais je veux dire il a le président Ousmane Sonko il a fini de de de de démontrer de montrer son intégrité mm. maintenant bu ñuy wax dafa mel ne ay bal en coton la ñuy tiré ça fait pas d'effet non dafa xam nga il a comme lu ma la wax mm. temps bi daf ko may xam nga bu doon ci début bi la mën nañoo ñëw peut-être is ont réussi au début oh euh, salafiste la terroriste yi ñoo nekk ci ginnaawam dafa bëgg a jële màggal yi ak gàmmu ils ont tout dit peut-être au début il y ki des gens qui qui ne comprenaient pas mais avec ça cette longévité avec ça cette persévérance dans la vérité mm. les Sénégalais dañu dem bu mujj xam boo waxee ci Ousmane Sonko ndax yanu na maanaa wala yanuwul maanaa de gis nga ko ci événement mars yi bu ñu waxee rek même ñi fekkewul dañoo weddi parce que nit aussi soo jubee jaayante am na foo xam ne yàlla daan la c'est moi qui fais mm-hmm. donc yàlla mooy mujj def si xolu Sénégal yi de en sorte que bu ko nit tuumalee balaa ngay àggal fi ngay wax yàlla day wan nit ñi que ne kii dañ koy tuumaal. Mm-hmm. donc amatul lu nit di wax ci moom ba ñu dutee parce que ñun toog nañ gis nañ ko mu jëf gis nañ que lu muy wax ci kaw moom lay wax ci suuf. donc bu nit ñëwee wax automatiquement on sait ce qu'il dit est vrai ou est, ou est faux. d'accord euh, certains partisans de Pastef certains patriotes. comme ni nga mm. koy waxee. certainement jamono bi muy wax ak yow nii. Euh, nee nga amoo carte. Euh, carte de carte de membre. je suis très souteneur et sympathisant de, de PASTEF, très très proche d'eux. Je me retrouve dans tout ce qu'ils font, les dons de sang, mm-hmm. les euh, campagnes agricoles, tout ce qu'ils font, je, je retrouve. Mm-hmm. Mais euh, c'est une limite, un jour. Mais comme je suis un artiste, c'est tout ça. C'est ça ma question. Voilà. Est-ce ouais. que nous devons toog ba xaar euh, ndax benn bés nit dof dina ñëw jënd carte membre bokk ci PASTEF définitivement mm, mm, du ma lu ma du lu ma exclure parce que man ci lu may bokk rek day nekk luy jariñ Sénégal te ñu gëm naa que ñuy jariñ Sénégal leur façon de fair mm-hmm. lii daa doon ñaan yàlla na am. tu vois civilisé indi xalaat indi toog ci débat wu télé. même les gamins ils commencent maintenant à jël seen ay discours. télécharger ko seen ay téléphone donc moi de gens comme ça je les je les soutiens et je je retrouve ñoom ci ñoom lépp lu ñuy def donc ce n'est pas exclu un jour ma nekk un membre bu taxaw di def politique campagne complètement mais man fi ma toll guddin toll nii je me je me sens euh, modestie à part comme un révolutionnaire boo xamante ni gis na benn courant bu mën a sauver dëkkam mu ñëw ne lii de damay toog jàpp ci comme nu mooy faral di ko waxee rek bu fekkoon jamono yi Sankara je pense que même attitude bi Maam Laay am wala beaucoup plus même que ça mm-hmm. moo fekkoon jamono yi Mamadou Dia wala Cheikh Anta Diop sympathie en tout cas sama sympathie toujours sur ces genres de valeurs lay donc c'est ce que je retrouve euh, ci euh, parti euh, les gens qui l'incarnent les gens qui vont à la télé les gens qui prennent la parole c'est vraiment cette pensée-là la la Afrique soxla on mm-hmm. veut une jeunesse africaine très saine qui fait la politique de manière noble et euh, yëkkati l'excellence de la jeunesse pas ku leen di pervertir ak di leen corrompre mhm. et loolu laa gis ci ñoom qu'un jour je serai un membre euh, actif avec une carte et tout ça wala des responsabilités je ne sais pas mhm. peut un jour je le ferai mais pas pas pour le moment je me sens bien ci posture bi ma taxawee nii posture souteneur bi mhm. alors dañuy dañuy jàll